néewee doole itam réew mi quotidien dikk na ca nu mu gën a yaatoo lataa muy dellu si ci kàddu yi El Hadji Amidou Kassé yëkkati ci plateau réew mi TV lataa ñuy fësal tànneefu benn bokk yaakaar moom ka tàmbali woon naa sax joxe misaal ya ndax ku déglu woon Amidou kase bu baax a baax daa xam ni Macky Sall Amadou Ba mii lay tànn bu nu ko tànnee ba nuppi nag El Hadji Amidou Kassé nee na candidat booba la koy tax am ndam mooy dajale ñépp waaye itam xool lii njariñu ñépp bañ a xool njariñal boppam kott Aly Ngouille moom mott def ci gouvernement bi samedi tànn fa saasa la tekki ndombal tànkam ci gouvernement bi daal di ñaanalanteeg président Macky Sall président Macky Sall mooma ci biir vox populi ma ngay wax li waral mu tànn Amadou Ba nee na dafa xarañ ci wàllu liggéeyam jaar-jaaram itam mucc ayib li mu jot a jiite ci réew mi itam ku ci sukkandiku daa ko tànn waaye Amadou Ba ci jëmmi boppam nit ku woyof la mën a déglu te mën a dajale Macky Sall nee na lii moo waral ma tànn Amadou Ba waaye nag tànneef la gu ma déggoog ñëpp a ak ñëpp moo indi ci tànn Amadou la Le Soleil ne waxtaanu ñaari weer moo indi président Macky Sall mu daal di tànn Amadou Ba mu war a doon candidat wu Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal la waral tànneef geeg fi ko président Macky Sall teg Moustapha Niass ma ngi koy xamle ci biir yéenekaay bi di Le Soleil bi di Le Regard gis ne Benno danoo bokk yaakaar Amadou Ba lii quotidien jàpp ne Amadou Ba lu mu am tey ci biir Benno Bokk Yaakaar muñ muñ moo ko ko may ndax lu ne dégg na ko lu ne itam gis na ko fa Amadou Ba mooma moom la Macky Sall samp muy mbërëb Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu dëkkmal Sud Quotidien mi ni ko xamal ci xëtam gu njëkk mag nu fay xamal itam ni Aly Ngouille Ndiaye moom tekki na ndombal tànkam Mame Boye Diao moom ëllëg la yeewi askan wi ndax ca lay wax li mu nar Amadou Mame Diop Diouf Sarr ñoom naru noo def lenn lu dul topp ci ginnaaw ki président Macky Sall tànn buñ sukkandikoo ci bés bi le jour wuuteeg Mame Boye Diao mi fippu Abdoulaye Daouda Diallo moom patt la maye ni ki bun Abdallah Dionne mi président Macky Sall di dalal tey ci audience Abdoulaye Daouda Diallo itam Macky APR authentique la jëm maanaam ber daaray boppam la tribune jàpp ci ne bennoo tasaaroo la gën a jege fi mu ne Walf Quotidien mel ni ku naan ko tas na ba nuppi ndax révolte fippu ma ngay gësam coalition présidentielle bile Mimi Touré ci biléb yéenekaay di woo Amadou Ba ci débat public toog jàkkaarloog askan wi di wax ñëppi dégg 24 heures ne kon Mimi Touré tëkku na Amadou Ba Amadou Ba mooma l'observateur gis na ni danu ko xàllal yoon jëm ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal yéenekaay bi dellu si ci jaar-jaaram la ko mën a may ndam ak la ko ko mën a xaañ moom Amadou Ba min ne ay waxam bariwut ndax liggéey doongu la xam technocrate la ñu bari itam gis ne Amadou Ba ku sedd la waaye enquête nee na waa waajuta sedd miir sedd la ndax Amadou Ba mi ku mën a yëngal gësam la foo du nii la ko yéenekaay bi tuddee ñaar fukki weer ñeent yu nu weesu nag yombutoon ci moom ndax jaar na ci ci lu mitti waaye dafa xuus jàll ba yegg si tey ci ñu tànn ko mu doon mbërëb Benno Bokk Yaakaar ci élection bi ñu nu dëkkmal tànneef googa ñel Amadou Ba yor yor bi gis ne lu garaaw la waaye li garaaw dëgg Ibrahima Bakhoum nee na mooy Amadou Ba ña koy xeex mooy ay farandoowam farandoo di Khadija Mahécor Diouf moom ma ngay woo Amadou Ba ci mu jàkkaarloog nag mbërëb pastef bi mbërëb coalition Alpha Thiam 2024 moom nee anti système la système bi ci boppam la fi bëgg a moom njiital force nouvelle mi nu tabb mu doon candidat wu coalition Alpha Thiam ci njeextalu ay bés bi laas nee bokk na ci li diggee génne détenu politique yi Ousmane Sonko rawatina Macky ba wa jamono am ndam lu rëy ndax Union africaine dugg na tey ci g te lu ji juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yegg nañu ci ñaari fan yi nu weesu juróom-ñeenti gaal lanu jël ñu bawoo Sénégal wutali Espagne buñ sukkandikoo ci libération mi ne diggante samedi ak dimanche lanu leen wàllu fukki soxna ak juróom ak fukki ndaw ña nga woon ca yooyele gaal libération jóge ci géej gi wutali Maroc nenu ñaari junneeg fukk ak ñaari nit ñoo faatu benn doomu Sénégal bokk na ca Sénégal mooma nag ma ngay waajal ay équipe de secours ngir ñu dem wàllu Maroc nanu ko defee woon ca Turquie ci biir l'Observateur ay doomi Sénégal yi mucc ci suuf sa na leen yëf bi del si ci jaar-jaaru doomu Sénégal ba ca loru réew mi quotidien nañu ñooñu loru ci suuf sa yëngu ca Maroc moo waral kaaf jël dogalu boole une minute de silence ci éliminatoire kan yi maanaam benn simili boo xam ne ñoom la ñu cay fàttaliko di leen ñaanal ñu des ci réew mi quotidien mi del si ci jongante bi doxoon diggante Sénégal ak Rwanda te mujje ci timboo ku ni benn bal Pape Bouna Thiaw di réccu but bi may waa Rwanda ñu daal di égaliser Mahrez ak Sadio Mané booba jamono seenu kujjee di wéy ci gëti stade sunu lamb moom gis rëk-rëk ci sele ba yoon ndax Franc mën koy rëbbee boor bi beneen boor